maa ngi mbay Mbaye Babacar président association des tailleurs et des coiffeuses commune de Thiès Nord. waaw jafe-jafe yi moom ñëpp ko gisandoo ndax li fi xew ñëpp teg seen bët mais tey soo lu ñëwee ci santé bi xool xam ni lutte contre la pauvreté la woon amicale des tailleurs et des taxawal ko fi pour contre pauvreté bi tey soo xoolee daanaka dañu juróon ay élèves di jàpp ci commune bi di leen former ngir dimbali leen. mais tey jii bi di amee xew-xew bi am dem na ba mënutunoo sax euh, liggéeyati laal na ba ci atelier yi nga xamante ne moo nekk ci koñ yi daanaka koo xamante ni borom kër nga yaakaar ni soo ñëwee sa place nga mun a jëlee dépense dem na ba léegi mu gisatoo loo liggéey parce que euh, dogal bi nga xamante ni président de la république jël ko ñuy fermer mariage yeeg ak xew-xew yi am yëpp soo gisee daanaka benn amatul te téer su mu ñëw daanaka xew-xew moo tax mu daan ñëw mais tey ji ba xew amatul. en tant que responsable yoo xamante ni lépp dañuy ñëw seen place pour liggéey pour jox seeni i njaboot te su demee ba loolu amatul kon yaakaar ne beneen feebar ñëw na ndax ay responsable yoo xamante ni dañoo yori seen njaboot nekk seen kër te suñu dem liggéeyatul problème déjà am na ñun nag ñu ngi waxee ci turu amicale des tailleurs et des coiffeuses communauté Thiès Nord fi centre la boo xamante ni dañ doon jël pour jàppale ñi nga xamante ni ni doole yi nekk ci koñ bi nga xam ne amuñu ay formation machine yi ngeen gis daanaka amicale bi moo ko fi def membre amical yi kenn ku ne mu cotisé ci xaalisam pour ñu jënd ay matériel kenn fekkuñu ci kon tey suñu demee ba jëkk premier pas bi pandémie bi démarré def nañ acte dem ci maire bi yóbbu ay dons parce que euh, comme acteur affaire citoyen la ñu def comme citoyen yëpp mais tamit ba demee ba ci digg ba problème daal di tàmbalee am ndax mënutoo fayati enseignant élèves yi fayatuñu daanaka liggéey bi taxaw na wax dëgg yàlla ñuy lancer appel président Macky Sall euh, son excellence di ko wax ni ah ñun de wax dëgg yàlla suñu soñoon feebar yu jóge fii mais nag feebar di mujj ndaat beneen feebar ndax ay responsable yoo xamante ni yaakaaruñu dara lu seen at lay pour dimbali seen njaboot ku dem sax rus ngaa xool seen njaboot parce que amatoo loo leen jox loolu day tax sax da ngay bëtt li nga xamante ni mooy loi bi parce que koo xam dafa war a jox nit ñi ñu lekk mënatoo jox nit ñi ñu lekk yaakaar naa doo dégg lu lay tere waaw dem naa sax bay toog ci biir yi ay nit ñu naan corona sax da leen di gënal fi ne nii di càmbaarloog ak ak seen i njaboot nañu bëgg képp autorité yi nga xam te ñu ngi ci réew mi ñu lancé appel luñ ci mën pour jàppale téer yi ñu def ko waaw dem nañ sax bay organiser pour bëgg wut ay max yoo xam ne dañuy bëgg état bàyyi ñu xel subventionné ñu ci ba nga xamante ni duñ ci mën a sax au moins gérer yenn acti activités yi ci kër yi daanaka mënut a régler lépp mais mun na wàññi quand même yenn problème yi quoi jëf ci wàllu sensibilisation bi waaw loolu yaakaar na nit ñoo ci jiitu ndax bi lii amee xew-xew bi amee teew lu ñu dugg atelier ak atelier li ñu mën ci sunuy sunuy fonds as tuut ci sunu gafaka dañ ko génne wut ay satala wut ay madaar bàyyi ko ci buntu place yi mais dem na ba léegi place yi sax kenn ñëwatul doon ñawloote parce que dëkk bi fi nit ñi yaakaar na toll na fa xam nit ñëpp ñoo ko yëgandoo dañ ne kuy ku njëkk a rek da ngaa ragal mais yaakaar naa ne sensibilisation ñun ñoo ci jiitu tamit loo xamante ne lu sérieux la comme ni ko ñëpp waxee lu wér la luy gaañe la luy lore la waaye nag ñu dañuy euh, lancer appel boo xamante ni président de la république mooy xam te mooy yilif ñëpp ñu wax ni fi ne ni yuuxu nan ñu ko ñëpp di waxee yuuxu nan ndax métti na ndax dëgg yàlla dañuy tere sax jàmbat waaye nag du ñàkk yenn comme que njiit dafa métti te da ngay njiite njiite ñëpp euh, sa devoir mooy moo la permettre nga mën a taxaw waxal waxal ñi nga xamante ni mooy ñuy jiite. jëlaale Fatou Fatou jëlaale. sàcc nañ la